الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف خلقه وأكمل رسله سيدنا محمد من روحه قبلة الأرواح وجسمه كعبة الأصباح وعلى آله وصحابته ذوي الإصلاح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 wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla waroon a ubbeeg yow bunt bu bees ni ma la ko waxee woon démb ci waxtu wi bunt ba rekk moo doon ku toll ci xarxarle li dee dundam war a jeex ci dundab àdduna bile mu war a dem dundi ci beneen place bu ñuy tuddee barzak waaye njëkk may ñëw ci loolu faaw rekk maam lu ñu yokk ci mbiram imaama giñ doon wax démb muy ci mbiram jiite ndax daal ku nekk ci ñun dafay yëg feebar bu doy waar bi nekk ci jàkka yi xëccoo daraja yaak bëgg feeñ ya su boobaa kon lépp loo wax ci wàllu jiite rekk doyut mu mel ni ñi xamul rekk bëgg daraja ñoo koy xëccoo waye ñi xam li ci responsabilité jité so leen ko joxé sax ñi jox la ngant ndax ku yalla nattu ba nga nekké ci kanamu nit ji jilen leen jiite seen rooxu ñi ngi koy ci sa rooxu gi du ñak ngay jité ño xamé ne ni ño la ëpp ciir ci yalla ya nga jité ño xamné ne la ëpp xam-xam ya nga jité ño xamné ne la ëpp may ñooña ñepp nak suñu jëlé seen yi ak leer ga mu ñi branché ko ci sa rooxu gile ñoom bu ñu la xëppee leer rek coono dikkal na la coono dikkal na la moo tax mag ñi daan taamu lu ñuy jàng bala ñoo jiite kenn soo ko xamul nag di jiite ñoo xam ne ñoo la xëpp may xëpp la leer voltage yi ñi am moo xëpp sa voltage bi suñ ko branché ci yow rek mënoo mucc ci musiba yi ni feebar yi walla fan wu gàtt wala ay jafe-jafe lu mel noona nag ku ko xam du ko xëccoo ñaareel bi yàlla gàcc la responsabilité bu day nii ñi ci sa gannaaw yëpp ku ci xëppale ci julleem gi yow mi di limaan yow lañ koy gàcc ku ci mànkile ci wàllu sunna yaak ya ca aju yow limaan ji yow lañ koy gàcc mu mel ni nag ku xenoo xen bu diis bu ma xàttanut boppam waroon na koo doy suñ la ca bëggee dolli li yi ñi nga jiite coono dikkal na la ku mànkile loo manta matal ñii seet ñeneen ñu mànkile di la ko xenaat ku xam loola buñ ne la ak imaama ngóog ak imaamatoo ngóog ci ak njiite nga ne doy na moo tax benn sahabi dafa réere woon responsabilité ñëw ci yonantu bi ne ko li la yàlla sédd laa bëgg nga sédd ma ci fal ma dara poste boo ma jox rek ma jiite ko baax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko suñ mbir yi ñun duñ ko jox ku koy laaj waaye suñ mbir yi dañ koy jox kuñ koy laajal waaye mbir fekk yaa ngi koy laaj ne jox leen ma ko rek da koo desee xeeyoo waaye saa yoo ko xeeyoo dañ la koy laajal nga di ko delloo. kon nañ ci bàyyi xel bu baax boroom xam-xam yi am yu ñu lim ne bu dajee ci yow amoon na lu ma la ci wax. da nga mëna jité bu manké ci yow amna ci yu manké dañuy sip nga jité yoyé nga xamné bu dajé ci yow lu ñuy tuddé ak imamatu dal mat mat mat nga ko jité ba ca jitu moy na nga nek di julit waye ab man ta jité genn julli mënta jiite ñenn ñu julli kon d'abord bala nga jité julli na fekk yow ngay julit ñaarel ba moy nek nguur am ak ngóor mu nekk ab góor waaye jigéen mënta jiite ci mazhabu Malik mënta jiite jigéeni kese mënta jiite góor yi kese mënta jiite ay góor ak jigéen mënta jiite naafila mënta jiite farata loolu mooy bu Malik boo demee ci imaamu Shafii nag lu mel ni julleeg niiw ak ay jigéeni kese mazhabam ba ak imaam ahmad danañu daganal jigéen jiite ko indi nañ koy ay tegtal ñoom tamit waaye daal du suñ mazhab bii di malik ñetteel bi kiy jiite dafa war a am xel waaye ab dof koo xam ne léeg-léeg mu dàngu ay daanu gàngiri kooka ala kulli haal mënul jiite ku sa xel fàddu daal ak lu ko mën a fàddu rek mënoo jiite ki jamono jooja mu fàddoo moo xam dafa fàddu ci naan sàngara moo mile wala sax dafa naan lu dagan waaye da ca naan lu hëpp ba xelam ma fàddu jamono jooja mu fàddoo du ca mën a jiite koo xam ne tamit li fàddu xelam mi feebar la muy feebaru junuun moo ko dal doonte nekk na koo xam ne léeg-léeg mu xiqi léeg-léeg du xiqi jamono ji ko ñàkk xiqi gi dikkalee du ca mën a jiite ñeenteel bi bala ngaa mate ilimaan na fekk nga mesure waaye xaleel bu mësoor agul mënul jiite ay mag yu mësoor moo xam ay góor lañ ak i jigéen waaye nag boo mësoor agul mën ngaa jiite say morom yi julleeg farata comme mësooroo mësooruñu bu fekkee mësoor aguloo mën ngaa jiite mag ñi ñu mësoor ñi ci góor ak i jigéen julleeg naafi la waaye bu julleeg farata daal yow mi nga xam ne toggaguñ la jëf nekkaguloo mu kallaf mënoo ko jiite ay mu kallaf yuñ togg jëf ba pare bi ci tegu mooy juróomeel bi bala ngaa mën a jiite na nga amee xam-xam boo xam ne lépp luy waral julli di ko wéral xam-xam booba xam nga ko xam ni ñuy préparer laab ci sangu janaba ak njàpp bu gànta nu ñuy tiimee bu yooye paree nga mën a xam mën a jàng faatiha ku saar wu rafet mën a dégg fiq bu la xab la gaaree nuñ koy sujootalee wala da bula la yokk wala wàññi fu wara sanni ab rak'a ba kenn mënutut ko indi te dañ koy dañ ko remplacer les benen ak fo xam ne bu raka ba sanni guñ ko yo, nga ko jëli yeb da fay laaj nga xam ko boko ko xamut mataguloo ilimaan te tay de buñ ko don examen suñu ilimaan yii quatre vingt ala kulli hal dañuy échec sama baye don jité may jité rek ndax ma fi mak jàkka ji suñu jàkka la wala maa ko tabax maa koy jiite walla daal am pànk laa maa jiitu ci koñ bi daal def naa samay pexe ba jumaam fi wala jàkka kenn mënu maa jiite looloo fi bari ci ji jamono su ko defee nag fal benn commission bu la nekk ñu nekk ay pànk comme yow ku la bëgg a jege rek ñu dal ci kawam su ko defee yéen ñooña ngeen def benn kalan di dimbali koo jàkka ja di ca dund waaye dimbali ku kon di ko dundal juróom-benneel bi dañuy sartaal ci limaan mu nekk ku maandu na am ak adaalatu lépp lu ñuy tuddee ak kàccoor muy génn ak topp na dàqu ci moom waaye limaan boo xam ne dafa génn ak topp di def bàkkaar yu mag yi di ko feeñal bañ xam ko kooko ah, matul ilimaan ilimaan buy sàcc iliman buy nan, iliman buy njaaloo iliman buy jew iliman buy rambaje, iliman buy dog bok iliman buy tux cigarette iliman bo xamé na ni ala kulli al ku ko xam-xam na ne mandout fu intérêt ba àdduna taxawé mu jaay diide la nga ca gannaawam tabarakallah ilimanu politiciens yi suñ jamono jilé matuñu iliman politique ba mu yàqoo gut lu ko gën a xamu ci kaw suuf ki jaamoo ko yàlla ba mu yàqoo nag lu ko gën a xiis nekkul ci kaw suuf su ko defee nag politique ji xew ci suñ jamono yile yooye kuñ ci xam ñu ne ak yilimaan nga daal eh, yooye daal seet ku ko doonu daal moo ko gën waaye su fekkee nag moom topput politiciens yi politiciens yi le dëgg rek lay wax ku mandu la ku djub la lepp lo xamene ni nii du du ko lek ba melni ni abdul Aziz mu baax ma bañ ko ndile alal ja ko dañ la ko jox mu ne xaq doomu aadama yi lañ degale jox ma rek kon duma ma ko lek dama de delloo xat ko fofa nak fala mandu yam ak bax ak ragal yalla ku mel nona jema jiko jiko jëm jikkoo donte munu ca yegg kenn gënu la mat waye ko xamne lulang lu lang nga nga nga jël luñ dagalee muy xàq nit ñi buñ la ko joxé nga lek bay laajaat fo tollu ya ngi wax wax jo xamne ne ko fenn lu dul ci sa bakkan ak lu jëm ci sa pos ku mel nona kenn warul julli ci sa gannaaw kon ku génn top ci ay cër ko la ngi tuddé fasikh lu yaatu la nak koka matul iliman wala mu génn top ci pas-pasam nekk koo xam ne mbiram yëpp ay xuraafaat la njabarkat la ay mbiram yépp mbiram bidaa rekk ci lay sukkandiku bàyyi fi sunna bàyyi fi sharia ku mel noona deesul julli ca gannaawam naka noonu juróom-ñaareel ba dañuy sartaal ci limaan mu am kartan ci war a mën a indi ponk yay ko jug wax ak ponk yay koju jëf ponk yooyu ko jóg wax nag mooy mën a jàng faatiha ak mën a sëlmal ponk yooyu ko jóg jëf nag mooy naa am kartan ci mën a rukkoo mën a siggi mën a sujjóot mën a siggi waaye soo ko mënut di ko junji ku ko man du mën a julli ci sa gannaaw waaye man ngaa jiite ku ko mënul ni yow ngeen bokk di rukkoo ci junji ya di su junji rukkoo yaag sujjóot yaag ca toogaay yaag wala ca na ngeen ko manee aa su nag xalil sax nee na soo ko doon jiite nit ki kooko dem ba ci kanam mu tene mën a rukkoo mën a su jot yow da ngay continuer junji ñaari wax a ci xam ñeen na ñene dootul mën a continuer roy ci yow bu ca continuer di roy julli ga yàqu na ñeen ñene mën naa continuer roy ba tey rek xawlaani la ci xalil wax su ko defee kon nag yii mooy juróom-ñaari sarta yi nga xam ne kuy jiite julli juróomi tusubaar tàkkusaan timis ak gee suba mënul manqué ci yow bu ca manqué matuloo ilimaan xam ngeen ne nag ñi ñiñ manqué le lile bëri le nañ ñiñ manqué le yële bu fekkee ne nag jumaa la danañ ci dolli yii ma bëgg laa wax buy buy fekkee jullig jumaa la danaa ci dolli yeneen juróom mu fekki juróom ñaar yële mu nekk fukk ak ñaar waaye bu fekkee julli juróom yi rekk la moom juróom ñaar yooya ku ko man rek ah, mat nga yilimaan nekk ab jullit nekk góor ba nga nekk ku ñu tàpp waaye nekk tamit ah, ba nga nekk jigéen nekk ko am xel ku du dof nekk ku mësoor nekk ko am xam-xam ci mën a ci loo xam ne julli mënta ñàkk mën a wéree lu dul ci moom nuñ koy waajee leeg nuñ koy jooxee ak lu la ca gaar nuñ koy defaree di ko réparé xam maandu bañ a nekk jigéen nag topp ci wax mba ci jëf mba ci pas-pas nek ko am carton ci mën di ponk ya ci ruko ya ak sujjóot ya ak ya ci haju yi dal moy juróom ñaari nga xamne kum depo ci yow rek mat ngay liman yi nak bu manké ci yow ña ngay jité timin manqué ko comme ni nga ko iliman matoo iliman ci ñepp way mat nga liman ca ñoña lola mom dara newu ci taw mat iliman bo xamne nak ilimanu général la koku lu jafé la waaye su boobaa nag ilimaanu local nga ilimaanu local nag yomb na su boobaa nag yow ilimaanu local nga rek ca gox booba noona dara nekkul ci yaa ngi nii mësoor a guloo mën ngaa jiite ñu mësoorut comme yow kooku local la yaa ngi nii ko xamut xel di ab dof nga mën ngaa jiite ay dof comme yow yaa ngi nii ala kulli haal xamuloo xam-xam ci nu ñuy defaree julleeg nu ñu koy waajaleeg euh, fatiha ju rafet ak saar waag euh, sujootu xabla baax da waaye ñi ngay jiite yëpp ni ñaw lañ mel ba tey foofa mat nga fa ilimaanu local yaa ngi nii maanduwuloo waa ngi nekk sa gannaaw yëpp yaa ngi ñoom a yem yéen ñëpp tabaarakallaahu ay randalkat ngeen ah, ak la ca xaju su boobaa man nga ilimaanu local ah yaa ngi nii da ngaa ñàkk ci mën a rukkoo da ngay junji rukkoo yaag sujjóot ya yaa xam ca taxawaaya mbaa toogaay ya ñi ngay jiite noonu lañ mel comme yow ilimaanu local nga waaye xamale ko foofa rek de boo génnee de bu ko buñ ko waxati bu dee jullik jumaa nag dañ ci yokk juróom mu fekki juróom ñaar yile muy fukk ak ñaar ilimaanu juma danañ ca sharta ilimaan jey jiite juma ja na nekk muqim bañ a nekk musaafir boo nekkee musaafir mooy kuy wàññi julli su boobaa doo mën a jiite ja kuy wàññi julli du mën a jiite ci bu Malik yokk nañ ca sax boo wàññiwut julli waaye tukki nga lu mat ñetti kilomètre jëm kaw su boobaa jumaa jooja jàppoon la jàppatut la su boobaa tamit dootoo mën a jiitee ci jóge la jumaa loolu li hëpp ci fuqaawu Maliki yu na yi dañuy jël ñaari xaaj yëpp ca kay wàññi julli ak ki tukki tukki moo xamee na ni jumaam jam jiite woon jam daan jiite jàppatut ko su boobaa tamit dootut mën a jiite ci yeneen jumaa ju ko jàppul kon ñaar yooyu yëpp ca la bokk su ko defee kon nag bu ay nit xubbee seen jumaa mu rafet ñoo la bëgg nga dalooxal leen ko na fekk nga ñàkk bokk ca ñay wàññi julli su boobaa boo ko jiitee dana mën a wér boo ko xiyaasee tamit ci li xalina illal xalifata xalifata nag xamatut ne fekkee ne mooy xalifaab jullit ñii dana mën a jiite jumaa ju mën a dem loolu nag déggin wu bees la laajaat ci suñ jamono jile loola mas nañ caay yéegal ndax jullit ñi ci sayduna Ousmane bañ koy ray ci la leen wax na ci man ngeen ni mujj amee xalifaab jullit ñoo xam ne jullit ñëpp ko déggaloon bi fi yonent bi nekk benn xalifa bu ñëpp déggal ñaari xaaj amu fi Seydunaa Abubakar boobu mu fi nekk benn xalifa bu ñëpp déggal ñaari xaaj amut Seydunaa Omar ba mu fi ne benn xalifa bu ñëpp déggal ñett ñi le fuñ mën a tukki ci àdduna bi jumaa juñ fa fekk rek mën nañ koo jiite dañuy wàññi julleeg wàññiwuñu jumaa ja jàpp na leen ak jàppuñ leen lépp mën nañ koo jiite Seydunaa Omar noonu Seydunaa Ousmane waaye bañ koy rey nag ci la wax ne ci man mii ngeen a mujjee amee benn xalifa bu jullit ñëpp di déggal tax biñ ko reyee rek Muawiya taxaw di laaj deretam Seydina Aliyu taxaw ñu samp ko muy xalifa bi yonent bi sallallahu alayhi ñaar taxaw nañ ñoom ñaar génn àdduna Yasid taxaw Xasan mu génn àdduna Xuseyn ak loola mooy continuer tey nag kon loola boroom xam-xam yu mujj yi ne nañ mën nañ koo xiyaas fépp foo xamee na nii seen njàngam diine ci yow lañ koy royee lépp loo leen digal dañ ko def bu dëppoog santaaneeb yàlla loo leen tere dañ ko bàyyi bu dëppoog tereeg yàlla yaay seen kilifa ci wàllu diine sa waaw la ñuy déglu sa déeréet la déglu foofa boo fa tukkee yaay seen ab xalifa seen jumaa jooja man nga koo jiite kon ilal xalifa booba li hëpp ci boroom xam-xam yu mujj yi noonu lañ koy balaloo ndax am na ñoo xam ne tey seen kilifa ci diine mooy imaamu Qaradaawi moom lañuy ñuy déglu foofa kon kooka fu mën a dem rek mooy kilifa ak ñooñu mooy seen kalifa am na ñoo xam ne ibnu taymiya la ñuy déglu kon kooka fu mën a tukki mooy seen ab kilifa waaye am na ci ñoo xam ne cheikh na ahmed tijaani la ñuy déglu am na ki ñoo xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul la ñuy déglu am na ci ñoo xam ne Mawlaaya Seydil Haaji Malick la ñuy déglu am na ci ñoo xam ne Mawlaaya Haaji Abdallah ak ñu mel ni ñoom lañuy déglu ñu mel noona nag jàngal leen teg leen ci yoonu diine yar leen ci fu ñu mën a tukki foofa seen ab dëkk la ñooña mën nañoo jiitee jumaa jooja loolu déggin la am ci ñoo xam ne ñu ne xalifa bi nga xam ne mooy kilifa ak jullit ñi biram ndox meek mbiri kàddu yëpp ci loxoom la ne loolu nag xamatut ku ko fii xaar doo ko doo ko gisati loolu nag kon xamatut ñi ñi nga xam ne nag ñoom loolu lañuy jàppandikoo ñoom fu ñu mën a tukki ba ñu leen jumaa rek dañuy dem fexe jiituwale ca bu desee ñetti fan ba nga xam ne yëg nañ ne jumaa ja jàpp na leen nekkatuñu musaafir ñii door a mën a jiite jumaa jooja ñooña nag Mawlaaya Haji Omar xalifa bu maandu bu sàmm booba ca la bokkoon ku bëgg a hubbik jumaa boo ko wooyee rek dana tukki ñëw foofa bu desee ñetti fan jëm kaw ba mu yëg ne nekkatul musaafir buy wàññi julli mu door a sañaa juma jumaa jooja noonu defoon ak waa Fass yi bañ ko mu ja kon nag xam-xam ngoog dafa yaatu waxal version yëpp rek kenn ku ci nekk bu la doy nga sukkandiku kon dañuy sarta ci ilimanu Juma ji bu mu nekk kuy wàññi julli waaw waaw bu nekkee kuy wàññi julli rek du mu nekk ab xalifa kon nag yusaadu fi salaatil jumuati istitaaratu istiraatu iqaamatil imaami fala tasixu imaamatul musaafiri illa ida kaana al xalifa kiñ na mu nag ci musaafir bi lay waxoon na ko mooy ki génn dëkk bi am jumaa rekk doonte le ñetti kilomètre la ko génn su boobaa jumaa jooja mu wan gannaaw muy jumaa ci dëkkam ja jàppatut ko jumaa jëm jëm donte moom nekkut musaafir muy wàññi julli tamit jumaa jooja du ko mën a jiite moo tax mu ne wal muraadu bil musaafiri alxaariju an baladil jumuati walaw bi farsaxin wal farsaqu salaasatu am yaal wa man kaana abada min farsaqin fala tajibu alayhi wala tasixu imamatuhu lil jumuati naam in hadaraha aj an ani zuhri su ko teewee bokku ca ñay roy dana ko doy walistu subaar ja waaye moom ci boppam du ko mën a jiite kon nag bul waxati ne maa tukki rek matatuma maanaam sama tukki mi wàññiwuma naa jiite déedéet di dañ ciy doole tamit ne na fekk sa tukki ma bu matul ñetti far sax fekkee jumaa ja nga dem sa diggante matul ñetti kilomètre kon dara néew ci benn jumaa ji rek la waaye bu ko xasee mar rek ba tey yow musaafir nga euh, li ëpp ci fukkaawu maaliki yu na yi dañuy wax ne ngaa war a bokk ca ñaay roy waaye waroo bokkati ci ñañuy roy lu dul ña ñu sett ñi ñuy kalifa nga xam ne ñoom seen eh, wàllu ña nga ña nga demal seen diina ci yow lañ koy jëlee loo leen digal moom la ñuy def loo leen tere ñoo la ñuy bàyyi yaay seen kilifa kon booy wàññi julli sax nga jiite jumaa ji dara niwu ca ci déggi ñu ñenn ñi kon demal ca fiqhul maliki fii thawbil jadid fii thawbihil jadid da nga ca fekk mu wax la la tamit ki génn ñetti kilomètre doon tele ba nga xam ne jumaa jooja mu wan gannaaw jàppatu ko dootut mën a jiite ci jeneen jumaa donte moom wàññiwut julli seete ko lii ma wax la ci alfiqhul malikiya fii thawbihil jadid boo demee ca safha 270 da nga ci fekk loolu ma wax la kon benn ngoog mu fekk juróom-ñaar ya ci buy jumaa buy jumaa dañ cay sarta mu bañ a wàññi julli dañ cay sarta mu bañ a wan dëkkam ba am juma ñetti kilomètre jëm kaw aa ñaareel ba aa na bañ a bokk ca ña ñuy tere seen ak njiite su fekkee dafa bokk ca ñañ tere seen ak njiite ca suróot ya jiitu woon mu mel ni ab jigéen la wala mu mel ni tabaarakallaahu xale bu mësoor a gut wala mu mel ni ko amul kartan ci néew xam-xam bi julli di mën a wéree ni koy waajale wala mu lott ci mën a indi ponk yaagee ci aju kooka moom du mën a e, jiite mu bañ nekk tamit koo xam ne dafa toj le toj moo xam ne moo ko tay soo jiitee fekk yaa ngi toj le toj moo xam ne moo yaa ko tay ca avant ngay soo bëgg julli ga dafa yàq julli ga ñi nga jiite bu ñu ko xamee tamit jumaa ja yàqu na ñi nga jiite xam nañu yow jàppoo te xam nañ ne yow mii timit ah laabuloo ngay jiite te ñun xam nañ ko duñ bu ñu bu ñu roy ci yow soo doon jiite nag ba ci biir toj mi gaar la teel sa bakkan tuumaal sa bopp ne da ngaa bori mën a xëcc ci kenn ci ñi la féetee gannaaw moo tax ñooña sàppe su njëkk borom dara yi buñ ko xëccoog boroom xam-xam yi de yonentu dafa daan wax ne su ma taxawatee di jiite na ma borom xam-xam yi méng nga xam ne su ma amee ngànta ku ma xëcc rek mu mën a mottali julli ga waaye soo fi ñëwee yore dara ju rëy walla nga yore fi sant wu kawe te xam-xam ba nekkut fa ñu ne la ñëwal ca kanam nga dem ca kanam ilimaan ja am ngant xëcc la gàcce rek lay indi ak yàq julli jàmbur yi te loolu baaxut kon nag ilimaan ji bu doo jiite ba ci kanam mu tojlee na xëcc kenn tée ba kanam génn kooka mottali liggéeyab ilimaan ja waaye boo jiitee nit ñi fekk yaa ngi tojle ñi ngay jiite xam ne danga ngaa tojle sa julli ga yàqu na seen julli yàqu na su fekkee da ngaa tojle waaye yow yaa xam ne yaa tojle ñi nekk ci sa gannaaw ñoom xamuñ ne da ngaa tojle nga jullee julli ba sëlmal doo war a wax ne man damaa tojle woon yow kenn yaay dem baa mu gi sa julli ga waaye ñu julli woon sa gannaaw ba xas sëlmal dootuñ baamooti ibnu rusdi loolu la gëm. demal ca euh, tabaarakallaahu euh, téeréem ibnu rushdi ba muqaddimatu ibnu rushdi da danga ko ca fekk waaye tamit téeréem bu am solo boobu tamit tabaarakallaahu boo demee danga ko ci fekk kon euh, soo lee ci biir toj gi tay ko ta fekk nga sa gannaaw xamuñu ko wala nga toj la tayuloo ko sax ña gannaaw xamuñu ko ah dem ba sëlmal ngi door di ko xam ñoom dootuñ baamooti yow kenn dong yaay dem mbaamu ji yàlla du togg nit ki lu xamut ñetteel bi fekki juróom-ñaar yële muy fukk dañoo bëgg tamit kiy jiite jumaa jile na nekk koo xam ne dafa mucc ci ay cër bu cëram ya wàññeeku bu benn baaraamam wàññeeku bu loxo ba wàññeeku bu baaraami tànk ya wàññeeku bu nopp ba wàññeeku na cër ya mat sëkk waaye su fekkee bët yaa muuru nag dara nekku ca Ibnu Maktuum yonent bi daana dem xare bàyyi ko fa muy jiite dara niwu ca na nekk tamit ku sàmm na nekk tamit boroom xam-xam na nekk boroom askan wu rëy na nekk koo xam ne tamit ku xatuwu la ba nga nekk xale bu ndaw na nekk ku rafet jikko ak bind rafet màndarga neex baat tabaarakallaahu sol tamit yëre yu yiw yëpp dañoo bëgg ci ilimaanu jumaa sopp nañ mu man ko yustahabu an yakuna al imaamu salim al aaliman warian daa xasabin wa sinnin xasanul xuluqi wal xalqi wa simti wa sawti wa thiyaabi muttasifan bi kulli sifatin mahmudatin yii yëpp dañ koy bëgg su ko defee nag yii mooy juróom yi ma la waxoon mu fekki juróom-ñaar ya juróom yi jumaa ka jagoo juróom-ñaar yële jumaa jagoo na ko en même temps euh, julli juróom yi ko boo ko boolee yëpp muy fukk ak ñaar yii mooy dajee ci yow muy fukk ak ñaar yi nga door a mat ilimaanu juma kon ilimaanu juma yombut ilimaanu jàkka gën a yombut ilimaanu jàkka juróom-ñaari sarta la ilimaanu juma fukki sarta ak ñaar mooy dëppoo ci yow nga door a man ilimaanu juma bu manqué matuloo ko. bu ci tegu tamit dafa am ci ñoo xam ne dañoo sib seen ak imaamatu am na ci yii ma bëgg a wax bu dëppoo ci yow dañuy sib nga jiite yooyu soo ko calculé dana mat juróom-ñett bi ci njëkk mooy sib nañ ci kii jiite nekk ku tiim mu dem di jiite ñu jàpp wala mu amoon nganta ba ñu bàndaas loxoye mu masaa ko wala mu soloo naw sang masaa ca kaw sang wa muy dem di jiite ñu masaawul seeni sang wala moom mii tiim dem di jiite ñu jàppul wala moom mii tabaraka amon ngànt ba tax muy massa muy dem di jité ño xamé ni dañu japp kon dal ki tim sip nañ muy jité ku japp ci bu Malik ki am ngànt ba tax mu massa ci sangam wala mu massa ci ay cëram yo xam dañ ko bandas muy dem di jité ko xam dafa japp japp lu mat sëkk sip nañ ko dañ ko sip rek luñ sip nak ci xam-xamu usul moy lo xamné soo ko defee doo ko jëlee benn bàkkaar waaye boo ko bàyyi woon rekk ñu bindal la yiiw ñaareel bi sib nañu ilimaan bi dëkkee àll bu ñu waxee àll nag muy arabiyu bi alquran al arabu asadu kufran wa nifaqan mooy koo xam ne la muy nekk gàtt ya moo gën a bari li muy nekk ak nit ña heure bu ne ma ngi ca xar yaag bëy ya heure bu ne ma ngi ca gëléem yaag nag ya ba daanaka daal li muy wéttalikoo ay gàtt ci diggante xar ak bëy ak gëléem moo gën a bari la muy wéttalikoo nit ña xelem ak xolam mën naa dem ba xiis mën naa dem ba buy rey nit du ko du ko tey amatul benn xolab yërmande ci lu mel noona ku mel noona dañuy sib mu nekk ilimaan ndax aimatukum sufaawukum la yonent bi waxoon seen ilimaan ñoo leen ramm kuy ramu nit ñi nag da war a rafet jikko nekk ku baax ku mën a jéggalee ku am yërmande kom bañ a dal waja jangon tabarakallah ak moromam ma serigne ba xewi len gannaaw bam len maye tariqa li jaasal len waye koka nak bañu ah mu wax moromam mané ko suma ma aduna dal suñu serigne bi donte moma jangal alquran jangal ma xam-xam may ma wirdo li jaasal ma bu ma jiite waaje dee ba sol mbubam koy sama talibé la bañ defar leen sàppe waaje ñëw ne joxe woon bu ko jité mu maandu xam ne xam-xam dab na ko xam-xam bu la dabee da ngay taxaw mu arrière kaneen jiite ko bañ pare mu xoo kooka ko waaw yow sa waa ji lum sikk ci man ba ne bu ma ko jiite ak fi ma jaar ak moom yaag moom mu ne moom dafa wax ne gis na ne jiiréb lim nekk ci yow di jàngal Quraan ak xam-xam xamul kenn ku la mos ñaan njekk nga nangul ko ko loo mosa a ngànk da koy dagg. loo mësa a doo ko bàyyi mukk loo jàpp daal fekk daggul doo ko bàyyi ku dëgër nga te gis na ne julleeg niw du dara lu dul ñaan yàlla njekk rek ci allahuma ixfir lahu warhamhu yow yàlla néew bii mënatul dara yàlla nga ko jéggal te yërëm ko te nag téere yi dañoo wax ne ku dul may njekk kenn du ko may njekk moo tax muy bañ nga koy yaa nga koy ñaanal yàlla njekk kom yow daanoo maye njekk kon nag ku dul maye njëkk boo ñaanee yàlla njekk du la may te moom bëgg na daal yàlla jéggal ko ndax ku bari bàkkaar la mu ne ko wax na dëgg taalibe booba nekkoon di eh, di taalibe ci sëriñam bii sëriñam bii di sëriñam keroog la mujj moom mii ba mu génnee àdduna jàngalaat sëriñ ba ci la sëriñ ba commencé la des ko dundam yëpp ku ko ñaanti njekk mu lay may kon nag ku bëgg yàlla may la njëkk nit ña may la njekk bul fi nekkati ne lu ma ŋànk dama koy dagg bu la ko juddu dal jaral bu la ko ndomba tank jaral bu la ko sañ-sañ daral bis dana ñew da nga bëgg ku la ñaanal njekk de tax la kulli hal ku maye ku ko ñaanal kenn du ko may kon nak de len maye njekk yi di wacce daraja yi di jël lepp diko delo yalla mi len ko jox kon li la ko wax su ko defé kon talibé ba dem na ba dé di jangalé dem na ba dé jangalé gim jangal sëriñ bi mu gën sëriñ ba ko di ab talibé ndax sëriñ ak taalibe du dara lu dul kenn ku ne ngay yokkoo ci sa morom ab sëriñ bis bu demee ba xegg ci makaamaab su ma mënoon a def lu bon tamit sañatuma ko su ma mënoon a wax lu bon tamit sañatuma ko ndax fi ma taalibe yi fekk teg fu ma dem ñu summi seeni dàll jox ma seen ñaari loxo sukk ci sama kanam ne tafli ma te mbedd mi koo fi tafli mu xuloog yow xeex ak yow dem yóbbu la police boo xamul sax ngi tëj la te talibi bu ne bala xam sañ-sañam bala xolama sedd serignam tafli ko ba mur yi boko ci xarxaramam baag yaram ya ba ko bu ko doom ya jegee sax mu raayal ko kon nak suma sañona defati lu bon tax sañatuma ko defati ngir fi ma tek yi buma bu ma ñi soppi toggu ya soppi lal ya kon dal sañatuma ko defati kon su boobaa bo xeggee foofa yow serign bi te serign bu ne war na waaye waaye kon su boobaa na nga yëg ne sa taalibe yii sa sëriñ lañ ndax xelaat leen ak sóoraale leen tax na nga bàyyi lu bon lu bari taalibe bi tamit bu demee ba ne ah man de fi ma sëriñ bi teg li muy bari bari ay taalibe saa yu ma ko joxee loxo mu jaar sama sant laaj ma sama papa laaj ma sama yaay laaj ma waa dëkk ba laaj ma liggéey beeg mu mbir yay demee man mi kuma fekkon may wax lu waxuhut mbaa may jëf lu jëfuhut ku ko wax sama sëriñ bi du ko gëm ndax fi ma teg kon nag suma sañona wax lu bon mbaa ma sañ ko def banako ko ngir fi ma sama sëriñ bi teg kon su boba yow sëriñ ci yow taalibe booba tamit nga ci sa sëriñ bi kon ñom ñaar kenn ku ci nekk dafa ju ngir yok moromam kenn ku ne tamit dafa jug pour soxla moromam yooyu yëpp nak boko ko rek li su ko defee kon nak ala kulli hal ku dem ba sa xol bi la xiis ku la ñaan njëkk doo ko may rusuloo kenn sa kilifaak bopp nga loo ŋànk da koy dog ku mel noona dañuy bañ mu nekk njiit ndax bu jiitee rek dana lor ja muy jiite su ko defee kon nag ko la ñuy al arabi ay al badawi yu ku mel noona dañuy bañ mu jiite ñetteel bi sib nañ koo xamee na nii yaa ngee jiite ala kulli xaal waaye li hëpp ci sa maam yi ngay jiite dañ laa sib dañ laa sib lañ la sibee daal mi ngi jëm ca wàllu julli ga benn sa julli gaa gaaw ba hëpp bu gaawee gaaw goo xam na nag day tere rukkoo ya mat sujjóot ya mat matatoo ilimaan wala sa julli gaa yéex ba jéggi dayo buñ jullee rekk yow sóoraale woo ñu feebar ña Surali hulo borom soxla ya sóoraale hulo ñu màgget ña yooyaa tax ñom ñi sible iliman jojja sib nañ mu yonu yonentu dafa daan wax ne yalla rebb na iliman jo xamne ay maamoomam ñing ko sib wala sax sib nañ la lo xamne waxuma ci walu julli gi waaye dafa ajo ci walu diina ji dañ lay deg ngay wax wax yo xamne teggo ko fen ci sa bakkan rek leg leg nga jëf-jëf jo xamne teggo ko fen ci sa bakkan rek mbir yu ñàkk fulla yu ñàkk suufe yi dañ la cay dégg wala ñu la cay gis ilimaan ju mel ñoon naa dañuy sib maanaam mu jiite waaye nag su fekkee dañ la dañ laa dañ laa euh, sa sa maam moom ya dañ laa sib mere la waaye liñ la meree yëpp buñ ko toppee bakkan bi rek la da leen a ëpp alal mbaa nga ëpp leen njaboot mbaa nga ëpp leen newet mbaa nga dàq leen a jàng mbaa nga gën leen a maandu yooya tax sa jub gi arrangé wul leen ndax ku jub dëgg-dëgg du arrangé ku di ku baax dëgg-dëgg du arrangé ku baaxul yooyaa tax nag ñi lay kereel ay mbañeel di ko jëmee ci yow yow sa imaama gi dara néew ci mën ngaa jiite kenn sibu ko waaye ki ñuy wax mooy ko xam ne tukkurahu fi atun min al mamumina imaamatuhu ida kaanatil karahatu li amri diini yi su fekkee ci mbiram diine la waaye bu dul ca wàll woowa dara néew ca su fekkee lañ lañ ko sibee xaajuwut ci wàllu julli gi xam nañu ko ca gaw sax xemale ko ca ñenn ña yàkkali nañ ko ba ne mbéy ci bu même bu ci mbiram diine ji ndax diine ji ji julli gi mooy kilifaam buñ liñ la sibee man koo argumenté ci wàllu diine ji la ah su boobaa tamit dañuy sib maanaam nga jiite nit ña. naka noonu tamit ku yore salas dafa yore feebar fu mu toll ma ngay toqal luy génn ci kanamam mbaa muy génn ca gannaawam. wala mu yore boroomi góom yi jàngoro ju mag jooju bu fekkee nekkut luy xeeñ wala muy wàlle waaye bu xeggee ci xeeñ ak a wàlle kooka jiitee ti xanaa mu jiite ñu mel ni moom waaye nag dootut mën a jiiteeti ku wér waaye su fekkee xeggut ci wàlle xeggut ci xasaw su boobaa nag moom sib nañ mu nekk limaan di jiite ku wér koo xam ne dara dalu ko ah juróomeel ba imaam ju ñu réere mbiram koo xam ne kenn xamut aw askanam kenn xamut ci wàllu mbiram diineem dara dañoo xëy rek mun a jalañ ci dëkk bi yore fi bitig ba tabax fi étage waaye kenn mënta wax ci moom dara xamaluñ ko dara kooku majhulul xaal la ndax ak maandoom ak ñàkk a maandoom duñ ko mën a xam su boobaa nag aw askanam ak ñàkk askanam ak nam juddoo mënuñ koo xam kon su boobaa imaam ju mel noona dañ koy sib mu jiite kooku mooy majhulul xaal yu juhalu xaaluhu min jihati diinihi aw nasabihi kon nag loolu dañ koy jib dañ koy sib nag illa ida rattabahu imaamun adilun aw naayibuhu su fekkee imaamu ratib nag moo ko samp ah su boobaa na kooka dara niwu ci imaamu ratib nag bëri na koy wax waaye maam laa jëb laa nee na lu naqaree xam la imaamu ratib mooy ko xam ne sultaan muy buur bi yoree àtte yi yore ndox mi moo ko samp wala naayibam muy action yam moo ko samp wala waa dëkk ba ñoom ci seen bopp ñoo tabax jumaa seet ne bañ xoolee dëkk bi daal kii am xamam maandoom ragal yàllaam juddoom tooy nañu ñu jox ko jumaa ji wala waaja sax moo tabax jumaa ba mu ko tabaxee moom ci boppam tamit mat na e, man na maanaam ak imaama surutu imaama yëpp dëppoo na ci moom ca xam-xam baag maandu gaag ragal yàlla ga su boobaa tamit loolu mooy imaamu ratib waaye tekkiwul rek ki fiy jiite toujours rek déedéet jamono ji nag la ma benn yélimaan waxoon mu ne imaamu ratib moom kuy jiite waxtu yëpp jeex na ci àll bi teeru bi de wóorut waaye li ko waral yëpp lu muy rek ak tool yi ak soxla yi moo tax imaamu imaamu kaar yi rek maanaam ay kaar daal moo fi des waaye limaan ji la jiite suba jiite la tusubaar jiite la tàkkusaan jiite la timis jiite la gee loolu jafe na lool ci ji jamono xàll bi ak teeru bi yëpp ci yem am na limaan yoo xam ne fa ñuy jiite dañuy xëy di liggéey fajar gi rek lañ mën a jiite. buñ xëyee di daan seen doole su ko defee bala ñoo ñëw timis passé léeg-léeg sa geer duñ ko jiite kon daal wax nañ ne ñooy ilimaanu ràtt bi waaye li coow liy bëri bëri benn waxtu lañ mën a jiite ci bis bi. am na ci deuxième quart bi léeg-léeg kii ñëw tusubaar rek lay mën a jiite de tàkkusaan doo ko gis de man ca leneen am na ci ñoo xam ne tàkkusaan dong lañ mën a jiite. am na ci ñoo xam ne gee rek lañ mën a jiite moo tax jamono jii nu ilimaan yi gëree gën a gën a baax ndax ngànt bëri soxla yaa bëri ba fi yonent nekk nag moom kenn muy jiite waxtu yëpp dafa jëloon soxlaay diine teg ko ci kaw soxlaay àdduna jamono ji nag ñun dañoo jël soxlaay àdduna jox teg ko ci kaw soxlaay diine diine daal ndes rek lañ ko mën a sédd lañ koo mën a def daal dañuy dem ba suñ soxla yi jeex ba pare defatuñ dara nag ñu ne nañ door a sédd diine ji yow daal bala ngaa mën a julli sax da nga ne naa xaar ba wàcc su ma wàccee sangu ba pare ba solu bañ indi reer bi su ma reeree ba pare door a mën a julli gaye foo ko teg ñu bëri loolu lañ gëm. ñenn ña tamit noona noonu la ñuy def bala maa mën a julli suba moom danaa yeewu danaa nelaw ba sama nelaw yu jeex ma sangu jaari borosu ba pare ñeen ñi ma ndékki li ma ndékki ba pare door a mën a julli suba li ko may li ma jul duma ci xam dara moom daal ngàntal àdduna fu mu la dabee nga ne ñukku diina ja ba ngàntal àdduna la sotti nga door a mën a jëm ca diina ja xam nga loolu baaxul jël sa mbubbam àdduna di ko daaxee sa mbubbam diine mbubbam diine yàqu te mbubbam àdduna du jàkk ba péncam yàlla du jàkk kenn mënu ko defar kon nag ilimaan ju ñu réere mbiram dañuy bañ mu jiite ba ca tegu tamit ku ñuy tuddee ab jaam jaam nag lu jafe la rawatina ci ji jamono ji mooy kuñ moom koo xamee nag nii dañ koo moom sib nañ mu nekk imaamu ratib nga xam ne dañu ko jàppoon ci xare xare boo xam ne du duhut xareeb bakkan duhut xareeb aada waaye xareeb diine la comme ni ko imaam Maba Jaxu doon defee ca xareem ya wala xare bu mel ni xareeb Seex Omarul Fuutiyu su boobaa kuñ ca jàpp yow lañuy tuddee ab jaam kuñ ca jàppoon maamam te goree la wala ñu jàppoon baayam goree luñ ko kooka ba tey ab jaam la ñeexal ña ko ña ko ña ko ko séddoo woon moomoo ko ca wàllu waawa su ne la jaam nga nag doo sañ a am fas doo sañ a am sareet doo am tool doo am kër lépp loo mën a xam sa sang bi moo ko moom. moom ngay xëyal moom ngay gontal soxna sax amoo droit takk ko moom bu la joxul ndigal loolu nag ji jamono dama wax ne amut waaye yombatut ku ñu fiy waxatee ne ab jaam nga am këru boppam am sareetu boppam am tooli boppam tabaarakallaahu am oto boppam ah, lu ko ca neex lay soppandiku la ca aju te ñu ci bëri seen maam yi ñuy wax ne ay jaam lañ ci xareeb ma ëpp doole damay daan rek ci lañ leen jàppee loola kenn du ko tuddee jaam. kon nag jaam ba ñuy wax jaam comme ni bilaal donoon jaam la woon Aboubacar Siddiq moo ko jënd goreel ko ku mel noona bu dee sax ala ku haal xamul kuy donn xalalam amul doom sang baa koy donn su dee bàyyi ñuy donn waaye mënuñoo jeexal alal lu mel ni jabar la bàyyi ak doom yu jigéen wala yaay yu mel noona nañ jël seen wàll la ca des sang ba jël lépp kooka la ñuy tuddee ab jaam. kooku sib nañ mu nekk imaamu ratib di jiite mbooleem julli juróomi yi tusubaar tàkkusaan timis gee waaye booba jaam sax moom bu dee jullig jumaa la moom matul ilimaan matul ilimaan ki jumaa matul ilimaan ci julli gi xeet yi muy tëbaskeeg koriteeg yu mel noona du ca mën a jiite bu fekkee naafila la nag mën na koo jiite dara néew ci bokk na si yiñ siib imaam bu ñu tàpp dugal ko néegu góor moor ko génnee ñaari way yoore ya ku mel noona sip nañ mu nekk imaamu ratib di jiite imaam boo xam ne dafa don toppandoor baatu góor jigéen ñi baat ba mujj laggi ba buy wax da ngay foo ne jigéen ay wax waaye góor jigéen ak boppam moom matul ilimaan waaye koo xamee ne nii baat ba daal buy wax da ngay foo ne jigéen ay wax rek amna na ñoo xamee dañoo toppandoor baatu ba seen baat ya far yàqu ca buy jàng faatee nga foo koy def kooku sip nañ mu nekk maanaam imaamu ratib naka nonu sip nañ koo xam ne xaat la dugg néegab góor muy nekk ak doom joo xam ne judduwut ci yoon ah wala du zina la mu nekk imaamu ratib yii la yëpp nag su fekkee deuxième imaam lañ wala troisième doole dara niwu ci mën nañoo jiite dara niwu ci sib nañ ci ilimaan ji mu gën a kawe maamoom ya muy jiite lu lu lu sebre bu xëppee sebre sax li gën a bëri ñu ne julli ga day yàqu moom daal bi an yakuna al imaam ala bi ziraain ma adami qasril kibri waaye maamoom ya ñoom mën nañoo gën a kawe dara niwu ci waaye seen gën seen kawe gile buñ sa jubloo ak rëy rek julli nga yàqu na ndax rëy ak jaamu yàlla mënuñoo ànd kon nag limal naa la ñi ñu sib seen ak jiite limal naa la ñi mën a jiite te kenn sibut ko limal naa la surut yi dëppoo ci yow muy ay sarta ba tàng man ilimaan bu dee jumaa fukki sarta ñaar la bu dee julli juróomi la juróom-ñaari sarta la waaye tamit limaloon naa la gannaaw yi nga xamee ne ni bu dëppoo ci yow nag dañuy sib nga jiite juróom-ñaar xam naa nag boo ma toppee suba ci waxtu wii ci kartanal yàlla ma sof ak yow li ma sosoon ak yow pour wax la ñi nga xam ne nag ñoom ala kulli haal daggan na seen ak njiite kenn sibu ko mën nañoo jiite dara niw ci waaye suba ci waxtu wi lay doon in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu